salaam guys c'est le berger high tech alors tey dama ñëw lancé benn coup de gueule benn cri de cœur jëmale ko ci société bi nga xamante ni moo gën a ñàkk a wekk ay client ci Sénégal muy Orange ñu ñëpp dund nañu lu ñu naqari ci société boobu noonu malheureusement c'est la société précurseur jëm ci wàllum télécommunication parce que ñoom ñoo fi njëkk a sanc jëm ci Sonatel tey peut-être état bu jaayul woon part yi ëpp ci Sonatel yi duñu si fekk damay commencer ci ay chiffres c'est-à-dire dama leen détailler chiffre d'affaires orange pour ngeen xam orange chaque minute maanaam chaque soixante secondes orange dina duggal ci gafakam deux millions trois cent mille trois cent trente chaque une minute chaque soixante secondes orange dina encaissé cent quarante trois millions de français CFA chaque une minute chaque vingt quatre heures maanaam benn journée Orange dina duggal ci gafakaam trois milliards deux cent vingt et un millions de francs CFA donc année bi boo calculer loolu yëpp mu jox la mille milliards cent soixante dix neuf millions loolu mooy chiffre d'affaires Orange te Orange li ngeen ci xamul boo demee dëkk ba ba France maanaam fi nga xamante ni ñoom fa lañ sosoo duñu sax troisième société de télécommunication donc Orange lépp lu muy am. ci Sénégal la koy amee Mali ak li nga xamante ni moom mooy Côte d'Ivoire et pourtant malheureusement ñun lañ gën a ñàkk respecte respecté connexion cher na fi te en réalité boo vérifier li ngay jënd ci données yi sax day gaaw a jeex donc ce qui veut dire que am na peut-être arnaque bu nekk ci ginnaaw 4G bi baaxul par rapport ak ku tàmm voyage bu demee à l'étranger gis ñoom seen 4G vitesse bu muy am fii 4G ba nga xamante ni souvent boo cliquer photo de un kilo octet sax dafay daal di tourner zéro heure bu jotee tu as yu mal à te connecter alors que da jënd li nga xamante ni moom mooy sa connexion fan yi ñu ñëw def seen beneen scandale li nga xamante ni moom mooy flybox yi nit ñi doon jënd seen kër ñu xëy rek changer prix yi communiqué wuñ ci defuñu ci benn waxtaan jëm seen diggante clients yi mais loolu c'est n'importe quoi jot na nag ñu xamal leen le client est roi moo leen nit ñi saa nous vous êtes absolument rien du tout tàmm nañ nag ay société jóge à l'étranger ñëw sanc suñu biir di ñu def nu leen neex te du mujj fenn parce que ARTP mu ngi fi ah, autorité de régulation des télécom et poste seen taxawaay waroon a nekk taxawaay kuy arbitrer diggante orange client yi mais orange day xëy def lu ko neex tu ne vois pas ARTP réagir c'est très dommage on en a marre on est fatigué cette fois si on va initier benn boycott bi nga xamante ni ça risque de vous faire très très mal gis ngeen ce qui s'est passé entre Wave et Orange il fallait am concurrent bu sérieux bu ñëw taxaw pour Orange wàcce ay tarifam mais avant boobu Orange nous suçait le sang Orange nous suçait carrément le sang il a fallu que Wave ñëw ñëpp dem barricade wu dem ci Wave que Orange commencé wàcce ay tarifam góor yëpp des Wave te ils ont parfaitement raison mais lan mooy ndey nga jëlee affaire yi douze mille neuf cent rek yóbbu ko seize mille neuf cent sans explication jëlee neuf mille neuf cent dem directement xaw ma euh, flybox bi doon jar trente mille nga koy jaayee cinquante mille francs il faut arrêter vous êtes dans l'abus télécommunication moo gën a yomb ci àdduna bi actuellement mais tu vas en France tu vas Free nga dem euh, États-Unis T-Mobile et cetera et cetera c'est des choses qui ne coûtent absolument rien foofu sax duñ jaay ay giga dañ koy jaay gaa ñi ci illimité bi la ñuy gën a di kii parce que dafa yomb. il faut respecter les clients, s'il vous plaît. On en a marre du manque de respect que vous avez envers les clients. Respectez-nous. Sans nous, nous encaisser encore une fois chaque seconde 2 333 000 francs CFA. Sans nous, nous encaisser chaque une minute 143 millions. Sans nous, nous encaisser chaque 24 heures 3 milliards 221 millions. sans nu du ngeen encaisser encore une fois chaque année mille milliards cent quarante neuf millions de chiffre d'affaires je suis désolé partagez la vidéo au maximum il fallait que ça sorte parce que trop c'est trop